Euh, senegal 7 seen rendez-vous hebdomadaire bi nga xam ne damay recevoir euh, chaque jeudi monsieur Clédor Sène leader de Clair-Vision ngir waxtaanee lépp rek loo xam ne ñeel na actualité bi politique économie ak lépp rek loo xam ne soxal na tolluwaay réew askan bi salaamaaleykum euh, Clédor. maa ngi leen di ziar di nuyu ñi seetaan seen site Sénégal 7 TV yëpp. Euh, di leen wax ni namoon naa leen parce que gëj naa def seen chronique du jeudi. Mhm. Euh, ay dog-dog laa amoon euh, mais. de retour parmi vous et machallah je suis à votre disposition. Mhm. merci beaucoup Clédor et bon retour. merci. <laughs> ñu démarrer euh, suñu vif du sujet par rapport ak euh, la situation politique euh, actuelle du pays. Mhm. parce que mun nañu wax ne fu mu toll nii landerneau politique sénégalaise bi par rapport ak derniers événements yi nga xam ne am na récemment violence bi arrestation Ousmane Sonko l'affaire Adji Sarr am na beneen tournure boo xam ne événement yi jël na ko ban lecture ngay def fu mu toll nii euh, euh, boo doon am benn regard par rapport ak politique fu mu toll nii nu muy doxee euh, ces derniers temps au niveau du Sénégal. bon fi mu toll nii ni muy doxee par rapport aux derniers événements qui se sont produits. Mm-hmm. c'est-à-dire euh, c'est un résumé du cheminement politique du Sénégal d'ici à 2024 parce que. Mm-hmm. dañu nekkoon ci réew boo xam ni nguur gi ñu amoon en face lu ko neex la doon def. Mm-hmm. di priver nit ñi seen liberté di priver nit ñi seen droit de vote. Euh, di di di privé nit ñi seen ay biens maanaam di di di rajaxe ay kër ak yëpp di tànn ñi nga xam ne ñoo war a voté liste électorale yi jeune yi ñu bind leen euh, noonu si sur liste électorale candidat yi mu choisir ñi nekk candidat jël parrainage jël justice euh, éliminer ñu mu soxla éliminer jàkkaarloog ñi mu bëgg a jàkkaarloog mm-hmm. donc loolu yëpp ñu bàyyi mu jàll plus maintenant arrogance su régime bi ak brimade bi ak état d'urgence bi nga xam ni amul woon benn justificatif ñu bëgg ko conduire pendant presque une année mu plomber activité économique nit ñëpp ba noppi ñuy gis euh, ay ay ay ay ay acte liberticide loolu créé na révolte surtout par rapport à l'affaire Ousmane Sonko créer na benn soulèvement populaire boo xam ne dafa résumer beaucoup de choses sur le plan politique li mu njëkk a mooy le problème du troisième mandat mm-hmm. parce que les jeunes on ont on réglé le problème du troisième mandat parce que au vu de li xew kenn waratu fi yëkkati fitna di wax waxu troisième mandat parce que loolu askan bi wane na ni duñu ko nangu loolu moo tax d'ailleurs ci négociation yi entre le régime et le gouvernement par l'entremise de l' de sëñ Mountakha mi euh, ñuy remercier encore une fois muy sëñ Bassirou sëñ bokk na ci point yi président Macky Sall wax de façon claire qu'il ne postule pas à une troisième candidature man ma sax mandat kon loolu événement yi passé réglé na ko événement yi passé aussi envoyé na ay signaux yoo xam ni euh, dañ ko war a décrypter comme je te le disais euh, tout à l'heure à l'endroit de la justice euh, c'est pas par hasard que cinq tribunaux ont été saccagés euh, parmi lesquels euh, celui de Diourbel bi nga xam ni nangoogul bàyyi euh, vingt deux détenus yi nga xam ne euh, ci événement yi la jàppoon ba léegi parce que li ñu saccagé seen tribunal moo tax euh, kontaanuñ ci mais message boobu dafa dafa dafa dem à l'endroit de la justice et justice daf naa dégg na ko bu baax parce que nee na def nañu benn atelier pour wax ci indépendance su justice impartialité wu juge immixtion euh, executif nguur gi ci doxalinu justice euh, ba à leur suite euh, le procureur Aliou Ndao aussi a abondé dans le même même sens avec des mots beaucoup plus directs donc wane ni justice bi askan bi wóoluwuñu seen justice te loolu dafay indi na ci réew parce que jëfandikoo nañu justice bi pour jàpp ñu ñun ak ñeneen ñi des ci kaso bi yépp jëfandikoo nañu justice par le passé aussi pour éliminer ay adversaires euh, politiques loolu moo tax nit ñi mënuñu woon évacuer en eux le sentiment que affaire Ousmane Sonko c'était le même procédé euh, maanaam li dal ci xalifa Sall ak Karim moom la ñu bëggoon teg ci kawam pour euh, xañ ko ay ay àq ak yelleefam ci wàllu politique ak ci wàllu civique donc droit politique ak civique donc loolu mooy lecture bi ma am ci ci ci ci événement yi passé mm-hmm. et la dernière lecture mooy nguur gi dañ ko désarmer en fait le régime bi makisal Sall na tout ses cartes li mu am yépp ci doole li ko constitution bi conféré li ko état bi jox lépp utiliser na ko génne na police génne na gendarmerie doyul mu génne armée loolu yëpp doyul mu génne ay nervi loolu yëpp taxul mu mën a Euh, euh, euh, mu mën a maintenir l'ordre publique mm-hmm. donc actuellement mënuma utiliser terme abdiquer mais il est dos au mur parce que la mu am yëpp génnee na ko mm-hmm. qu'est-ce qu'il peut avoir de plus rien donc force est restée au peuple et ce peuple-là va dicter sa volonté au régime fi mu nekk nii askanu Sénégal la ñuy déglu fi mu nekk nii jeunesse su Sénégal la déglu fi mu nekk nii parce que force lui est restée donc loolu mooy jàngat bi ma am ci événement yi passé sur le plan du landerneau politique deuxième niveau de lecture bi mooy sur le plan strictement politique dafa positionner euh, euh, euh malgré tout euh, Sonko en pole position parce que d'aucuns disent que euh, euh, le meilleur agent marketing de Sonko c'est c'est Macky Sall et son régime parce que lépp lu ñu ko fexeel dañ ci am les effets contraires escomptés dañ koy bëgg a suul far mu fitti fitti mooy mooy mooy décoller donc euh, loolu donc récolté na ay bénéfices en matière d' adhésion populaire yoo xam ni euh, kenn mënu ko woon nattee ni ñu ko nattee nii et loolu aussi c' est très riche d' enseignement sur le plan politique ça veut dire qu'il part avec des avantages certains sur tout le monde je dis bien tout le monde ànd bu fekkee ni ñu ngi jëm ci ay échéance électorale parce que fi mu nekk nii mu ngi nekk ci xolu jeunes yi parce que man damay dugg fu nekk dans les milieux jeunes et écho yi may am mooy moom vraiment am na benn adhésion populaire boo xam ni est-ce que amoon na ko avant donc euh, yooyu aussi bokk na ci euh, enseignement yu ñu ciy tiré ci mhm. xew mhm. Euh, monsieur Clédor sànq yaa ngi wax par rapport ak tension sociale yi nga xam ne nemmeeku nekko ko aussi ces derniers temps ñu gis ne aussi le président de la république Macky Sall def na discours am mhm. yéen bokk ngeen si ñi nga xam ne tegoon na leen loxo mais finalement après ñu bàyyi leen ñu gis ne aussi sëñ Mountakha Mbacké ak sa xalif généraux yi si dëkk bi yëpp def neen médiation bu am solo calme ak sérénité ñu dellu si waat mais yow en tant que acteur politique en tant que lanceur d'alerte aussi tàmm comme ni nga ko waxee di dem si coin zéro coin yi du Sénégal mhm. di am information yoo xam ne sax ñu ëpp si Sénégal lambda yi duñ ko am mhm. est-ce que yaakaar nga ni euh, euh, lii nekkul rek benn supposé euh, calme est-ce que yaakaar nga ni fii ak 2024 bu nguur bi defaatee yeneen façon yi euh, dëkk bi du du du du demaat ci kawoo bu mu naroon dem. non deux deux mille vingt quatre sore na trop. Mm-hmm. non deux mille vingt quatre sore na trop. on est en voie de règlement. Mm-hmm. de ce conflit politique. Mm-hmm. parce que fi mu nekk nii euh, yëngu-yëngu moo amoon. li tax mu dal mooy intervention xaalis bi. ak intermédiation. loolu moo tax dal am. léegi dal bi nag. du dal bu définitif parce que dafa am ay revendications yu ñu teg ci table neuf point la woon benn point bi respecté guñ ko totalement mooy la libération de tout toutes les personnes arrêtées ci événement yi donc maa ngi lay wax tantôt ni ko Diourbel am na ñu ñu ñu ñu ñu ñu libéré gul mais également am na ay arrestations yu continuer gis nga euh, le chef du protocole de Sonko est euh, est sollicité par la DIC. sollicité laa mën a utiliser comme terme parce que xamaguma de quoi il retourne moom nee na il attend d'être régulièrement convoqué donc inquisition boobu maanaam fitnaal googu ñuy fitnaal euh, opposition bi mu ngi continuer donc ñun dañuy xool fu wànnante di jëm ak gëtam fan la Macky di jëm ak ay engagement parce que du côté de l'opposition lañ ñaanoon dañ ko maye ci saa si maanaam ñu teg lépp ci suuf te loolu tamit wax dëgg yàlla moo gën li nga xam ni dañ koy foqati ci xeex bu fekkee ni mën nañ ko am ci table bi ci négociation ci médiation wax dëgg yàlla moo gën fitna du jóg dara du yàqu lor du am parce que quand am nañu ci ñàkk ñàkk seen bakken ñu mat quinze ñoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi ci tiis am nañu ci am ay gaañu gaañu yu tara tar yoo xam ne am na ci kenn koo xam ne sax dafa jóge ci faju ñu jël ko jàppaat ko yóbbu am na benn xale bu jigéen boo xam ne bu ñu may signaler sànq amul benn soutien amul benn ndimbal moom bal lañ ko dóor ci tànk mu ngi def ay pansement am danteg ñu ngi ko war a seeti pour pour jàppale ko donc ba léegi te président dafa ni woon day jël en charge toutes les personnes blessées ci discours bi mu defoon les personnes blessées se débrouillent par elles donc round d'observation la ñu nekk dafa mel ni match boo xam ni dañu sonné mi parce que y a un arbitre maintenant ki euh, qui mun taxa Mountakha par l'entremise de sëñ sëñ Bass Porokhane léegi ñoom ñooy ñooy facilitateurs yi ñu ngi xool ndax ak acquis dana am mais gis nga déjà benn pomme de discorde euh, ci euh, respect calendrier républicain bi bokkoon na ci point yi ñu posé woon président Macky Sall jalgati na ko parce que mu ngi ci tànku reporter de façon unilatérale parce que boobu ba tey dafa doon taafantoo euh, dialogue politique bi mm-hmm. naan report yi jot am yëpp c'est avec l'aval de l'opposition mais cette fois-ci le front de résistance nationale a tenu à s'en démarquer ñoom ànduñu ci ñu dàq élection yi tey ànduñu ci ñu dàq élection yi ëllëg moo tax front bi suspendre na participation ci dialogue politique boobu kon léegi euh, mesure unilatérale boobu ñàkk sàmmoonte kàddoom déjà mu ngi commencé feeñ te du ñun rek ñoo koy observé je crois que ñu nekk ndox suñu diggante tam ñu ngi xool ñu moom fu mu jëm ak ay diggéem donc euh, round d'observation la mi la am nañu un arbitre boo xam ni moom mooy mooy mooy mooy fixer les règles du jeu ñun on est en train de les respecter mais en face si si on ne respecte pas les règles du jeu je crois que ñu jóg sol seen daal di dox tànku jàmm dana leen leer bu boobaa ñoom danañu déterminé wu euh, ñun tamit boobaa dinañu déterminé wu. d'accord mais conclure ni. force est restée au peuple et force restera au peuple. d'accord parce que peuple bi bu ñu ko bàyyi woon ak nguur gi ñi 48 mu régler problème. Mhm. Mhm. mais mais mais Clédor sa euh, monsieur Clédor